ak Aliou ñuy commencer euh, première question bi pourquoi le Premier ministre refuse toujours d'affronter les députés à l'Assemblée nationale euh, alors boo boo gisee ma euh, c'est parce que euh, règlement intérieur Assemblée nationale bi mm. dafa pare waaw au même moment muy pare mm-hmm. au même moment le Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. bind assemblée nationale. waaw ouais. à l' mhm. pour euh, wax pour convo ñu convoquer. Mm justement euh, jeudi. Mhm. suba le 29. une session extraordinaire. Mhm. comme ça ñu jublu ci wàllum dissolution ñaari institution benn bi di conseil économique social et environnemental. beneen bi di HCCT. c'est au même moment qu'ils le font alors que mhm. en principe oui. HCCT mhm. ak CSE mhm. seen dissolution dafa bokk ci vision président de la République bi nga xam ne dafa war a génn ci une déclaration de politique générale boo xam ne de manière globale moom mooy joxe xalaatu donc euh, euh, président euh, de la république par rapport ak politique bi mu bëgg dérouler te loolu li mu ci li li waroon mooy mu mu yónni donc euh, président euh, premier ministre de la république du Sénégal donc Ousmane Sonko pour bu demee ca biir assemblée nationale mu mën a wax loolu yëpp ba di solution bi nga xam ne mooy bu HCCT te bu nekkoon ci seeni programme en tout cas daal nañ ko wax mhm. ak donc CSE donc bu booba dafa doon day bokk ci contenu déclaration de politique générale. Mm-hmm. donc en principe loolu moo waroon jiitu. mais au même moment. où règlement intérieur bi pare. Mm-hmm. ca biir assemblée nationale mu des rek ni. Euh, mm-hmm. donc le premier ministre ñëw affronter. le euh, l' nationale les députés. et au même moment. le euh, Bassirou Diomaye Faye. indi bind décret pour euh, convoquer justement l'Assemblée nationale à une session extraordinaire au même moment mm-hmm. alors que mm-hmm. li waroon kay mooy mm-hmm. ci yoon comme réglement bi pare na priorité bi mooy de manière globale yónni le premier ministre mu def sa déclaration de manière à ce que les Sénégalais puissent avoir une idée euh, de justement du contenu de cette déclaration de politique générale boo xam ne dissolution wu HCCT bi ak dissolution wu Euh, euh, CSE bi conseil économique social et environnemental. ci lay bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi concerné la vision globale encore une fois. du président de la république. Mhm. waaye loolu amul. Ah. alors léegi man affaire bi jaaxal ma. Mhm. ma toog di xalaat après ma ne mais man waaw mais waa ji moom lu tax du du buggul jàkkaarloog assemblée nationale. Mhm. des fois nga am xalaat mais des fois affaire bi xaw la ëpp doole parce que nekkuloo ci ay géntam. mais li nga mën a jugé mooy ay comportement kese ak ay attitude parce que dafa am ñaari dafa am une assemblée nationale boo xam ne pratiquement mm-hmm. euh, euh, dañu dañu dañu dañu ku nekk ñoo tolloo ay nombre de députés ki kii Benno Bokk Yaakaar benn la ëppale théoriquement mm-hmm. l'opposition en général benn wala ñaari député parce que ñoom ils ont 83 mm-hmm. il me semble te ñële ñi ngi am non ñoom ils ont 83 oui te ñële ñi ngi am 82 foog na ça fait 165 waaw léegi comme équilibre boobu dafa xaw a doy waar ba pare ak expérience politique euh, bi nga xam ne euh, euh, justement Ousmane ko am na ko en tant que député à l'Assemblée nationale avec tout ce qu'il a eu à dire pendant qu'il était dans l'opposition mm-hmm. et que peut-être dañ ko ko dencal surtout par rapport au programme bi nga xam ne moo doon programme mu Pastef ci élection présidentielle yi mm-hmm. ak yi gars daan wax depuis fukki at yi ci ginnaaw mm-hmm. est-ce que du loolu la ragal moo tax mu mënul ñëw jàkkaarloog ces députés là yi nga xam ne dafa daan jàkkaarloog ñoom di waxanteeg ñoom di di weranteeg ñoom ba sénégalais yi wóolu leen ñoom jox leen ko léegi moom mu war a dem nag assemblée nationale conformément à à l' article je crois que c' est l' de la constitution pour mu dem jàkkaarloo gay est ce que du loolu la ñemewul parce que li mu wax waxoon bu demee jàkkaarloog ñoom day compliqué quand même pour mu mën a génnee wax yooyu yëpp parce que ay bu ñu ko posé ay dafa war a tontu léegi tontu yooyu xëy na daf ko nar a poser un problème mu xalaat ni il faut que mu trouver ay stratagème pour d'abord commencer par un prétexte mooy la dissolution de ces deux institutions là HCCT ak CSE comme ça bu coow baree foofu immédiatement conséquence yi mooy le président mi nekk ci kaw et qui est l'arbitre ba pare am ci droit je crois conformément à Euh, je sais plus quel article c'est parce qu'il y en a beaucoup dans ma tête ah donc donc du coup euh, euh, léegi kooku moom ce président de la République là. Mm-hmm. bu boobaa en tant que arbitre day ñëw taxaw mu ne bon léegi de façon sax coow dafa bari ci assemblée nationale ñun mënuñu liggéey ak waa assemblée euh, gis ngeen. le constat est fait léegi il faut une nouvelle assemblée une majorité qui puisse me permettre man personnellement de pouvoir gouverner normalement man ak sama premier ministre. Mm-hmm. donc bu boobaa dina doon un prétexte pour mu euh, euh, dissoudre assemblée nationale. Mm-hmm. comme ça bu boobaa lépp jaxasoo ñu defaat ay élections yoo xam ne xëy na peut-être ils l'ont programmé par rapport à leur propre stratégie mm-hmm. politique. man pour man loolu la léegi nag. moi je dis que c'est dommage parce que. Euh, démocratie. doon na gën a respirer sénégalais doon na gën a euh, gindiku. ci yu leer yoo xam ne tey bés bu jàkkaarloo boobu amoon assemblée nationale. Mm-hmm. comme loolu olof di wax. bu mm-hmm. boobaa bu ñu yeewoo suba teel ñëpp dinañ yeewu taxaw. ne euh, ca ci Sénégal ubbi seen télévision yi en direct. waaw ca RTS. ne ah tey la tey la. jàkkaarloo nag koo xamante dañ laa am ëpp am majorité sa kaw. tamit. waaw mais mais au dinañ euh, constater bu boobaa ils seront mis en minorité. Mm. et boobaa waxtaan bi dina leer ba nga xam ne ci biir assemblée nationale. Mm. parce que boobaa Ousmane wax l' opposition ba gagné li ngeen fi def yépp dinaa leen expliquer sax pourquoi le pays est en ruine nan laay def ba mën ko respecter ñoom dinañ la poser ay questions aussi par rapport ak yi nga daan wax nan nga koy defee ak fan nga ci jaar ak et cetera yoon bi ak yu demee noonu. ça c'est c'est le harakiri. c'est une méthode oui mais peut-être que mun na bañ a nekk harakiri mais xëy na est-ce que du harakiri lay ragal loolu moo tax demul parce que wax dëgg yàlla léegi règlement intérieur bi pare na mais waa ji lan lay xaar pour dem assemblée nationale. moo tax ma naan dina dem. wala du dem. mën na dem. wala mënul dem. j'aurais comme l'impression que ni. du dem. te mënul dem. Euh, parce que tout simplement ouais. il n'a pas le choix et il n'a pas envie de se faire donc Fatou mhm. Ara Kiri voilà léegi non c'est que c'est que euh, Fatou Faye dafa am sànq da nga ko interprété ci benn nga ne mhm. euh, maanaam dem jàkkaar ñoo xam ne ñoo opposition ñoom ñoo ëpp mhm. mais bul fàtte ne en France aux États-Unis partout dans le monde deux fois le président ou bien le, ou bien le premier ministre qui est au pouvoir dégg nga moom day day ñàkk xam ne yu mel noonu yoo xam ne ñoom ñoom. minorité lañ mais Sénégal est-ce que lii mës mësu fi am. même actuellement mais Sénégal mësul am est-ce que mës nañu am pouvoir boo xamante ne mu am minorité ba pare. mu kii est-ce que mës na fi am. ci histoire mais Tanor ko bi Abdoulaye laa bëgg wax dama bëgg wax ne. dama bëgg wax ne. Mhm. li ma bëgg a wax dafa leer dama ne. Mhm. Euh, loolu man du raison. man kañ leneen laa bëgg a dégg parce que man mi tamit loolu laa bëgg a laaj Aliou dama ko bëgg a laaj ma ne ko Aliou Sow est-ce que fu mu nekk nii ci ci domaine boobu est-ce que Ousmane Sonko jalgati na euh, kii euh, bi mais ma pense que ni euh, euh, euh Ousmane Sonko. jalgati bi. ak jalgati ko lenn laa la mën a tontu. waaw mooy constitution nee na. Mhm. premier ministre de la république. Mhm. buñ ko falee. Mhm. dafay dem c'est une obligation ordre la. dafay dem assemblée nationale def sa déclaration waxuñu mën na ko def dañu ne daf koy def dem defi léegi premier ministre dañ kaa fal waaye assemblée nationale bii mi ngi fi dafa légitime ba pare mu exister exister teew quoi assemblée nationale dañ ko fal tant que dissoudre buñ ko dañ ko fal ba juróomi at yi mët léegi ñaari dem na léegi ñaari mët. mu def ko ñett assemblée nationale dañ ko fal comme ni ñu falee président de la république assemblée nationale bi sax moo gën a valable le premier ministre. <laughs> parce que ñoom dañu leen fal. peuple bee leen fal neex na naqari nag. ñii am 82. ñi am 83 te ñoom ñëpp dañu légitime ñii di op député opposition bi comme député euh, pouvoir bi ñoom ñëpp dañoo légitime. ku nekk ak sa branche waaye dañ leen fal comme ni ñu falee président Diomaye fay waa léegi. mais mhm. kon Ousmane ko moom dafa nara a bañ a dem assemblée national quoi. Mhm. mais li gën a rafet mooy mu bu fekkee ni dëggu na te dëggal na boppam te wóolu na boppam te wóolu na son projet te wóolu na toogaay bi mu toog pour que ëllëg mu mën a dem te réew mi parce que ñële xamuñu dara effectivement ñële bu ñu xamoon dara dina leen falaat ñoom la ñu fal léegi te boobu il faut que mu war Sénégalais yi gars yi nii tekkiwuñu dara surtout que yoon daf ko obligé pour mu dem jàkkaarloo gars yi assemblée mais kon dafa nara tey jii nii bu coow baree nii assemblée nationale ak affaire wu parce que député benn bokk yaakaar boo sàgganee mun nañ bañ a voté indil problème euh, euh, euh, ci biir session extraordinaire boobu Bassirou Diomaye Faye ne ko ñun yi ñu wax nii ñun taluñu ko am na yeneen yu ëpp importance ci réew mi jii du priorité et cetera ba coow jëpp ba ñu bañ a voté dissolution wu autorisation président de la république pour mu mën a dissoudre conseil économique social et environnemental ak HCCT. Mm-hmm. ba pare léegi bañ ko léegi boobaa coow day bari léegi mm. ça sera un bon prétexte pour le président de la République mm. de dissoudre l'Assemblée nationale mm. comme ça léegi mm-hmm. son premier ministre dina ko protéger moment boobu ah. pour que mu bañ a jàkkaarloo gaay parce que xam nañ ni mm-hmm. mais mais mais mais mais safara la na la doon biir Assemblée nationale le Sénégal à l'heure de la réduction du train de vie de l'État alors le Sénégal a réduit comment je l'ai dit encore à réduction du voilà, vie donc le Sénégal à l'heure de la réduction du train de vie de l'État. train de vie de l'État moo tax sax ñu ne. évidemment une belle transition. Euh, moo tax ñu ne sax euh, dégg nga maam kii bi. HCCT euh, dañ ko war a boo gisee ñu bëgg ko éliminer ak CSE c'est parce que ñoom ñaar rek c'est un gouffre de 15 milliards de de de de, francs CFA. léegi 15 milliards de francs CFA yooyu man d'accord naa c'est une bonne idée. Mm-hmm. parce que ci rationalisation de dépenses de l'État la bokk politique de rationalisation des dépenses de l'État je suis entièrement d'accord mais le problème mooy. mais booy rationaliser kay. da ngay lépp. surtout que dama gëm ni. ñaari HCCT yooyu ak CESE boobu Fatou. maa leen ko wax fii. Mm. bu ñu ko dindee ba pare. Mm. après dañuy créé waat beneen. loolu nga yaakaar. day am beneen day am beneen loo xamul dañ koy jaxase tudde ko Sénat wala tuddee ko o oh, xaw ma lan lu leen neex mais dañuy jaxase affaire bi. indiwaat ay ñu bees. loolu yow foo ko parce que il faut mënul ñàkk. mënul ñàkk waaw ah. il faut loolu am. Ah. je pense. Ah. bés bu ma juumee aussi nag mais jàpp leen bu baax li ma leen su ma juumee tamit nee leen su ma waxee dëgg aussi ñëwaat leen ngeen ne Aliou Sow waxoon na ko parce que des fois su ma juumee rek la ñuy wax ni damaa juum. waaye su ma su ma su ma su leeral ko wax ko avant ñëpp di ko wax bu boobaa duñ ko wax ñoom parce que du du ñu bëgg lool. parce que xam naa ni kon waa ji day bari bës trop. mais une chose mais c'est pas grave de toute façon. parce que borom xel yaa ngi fi te ñiy dégg xam nañu lii nii dañuy defaraat beneen. maintenant nag. problème mu mooy man. Mm-hmm. rationalisation. Mm-hmm. mais li ñu war a rationaliser bari na. par exemple mm-hmm. Ousmane Sonko avait dit que dañu war a jaay j'étais pas d'accord. dañu war a jaay avion présidentiel bi Diomaye day dem Chine ni kon dafay loué bu buñ ko jaayoon. Mm. day loué mm. avion te dina ci fay minimum minimum pour dem Chine. te mm. wallaay li may wax nit ñi xam nañ ko. minimum minimum pour mu dem ba Chine au moins dix mille kilomètres. dix mille dix te dina ànd au moins ak quarante wala cinquante personnes. Mm. dinañu coûter minimum entre trois cent et je suis gentil j'ai même envie de dire entre trois cent mille et trois cent millions et cinq cent millions de francs CFA. Mm-hmm. te yàlla xam na ne li may wax dëgg la. Mm-hmm. Chine laa wax. avion bi li muy jël rek ci ay bagages rek ci ay charges rek ci muy lekk ak muy ay bagages muy yooyu muy frais de parking muy muy kérosène muy yooyu yëpp rek loolu kese rek dina dem plus de cent millions. waxatuma laa nag dëkkuwaay beeg ñi nga àndal ak perjum yeeg bagage yeeg ñi nga war a dajale. mais ça a toujours comme ça avec les autres gouvernements bu ñu nekkoon ci dëkku démocratie dëgg-dëgg. Diomaye a fait plus de quarante mille kilomètres bi mu nekkee fii ba tey ci avion bi. est ñaata la dikkal. parce tey bu fekkoon dëkk démocratie dëgg lañu tey ni yow doo laaj lii te man tam du ko laajte ndax ñëpp a koy te duñ ci waxtaan ndax ñëpp a koy xam. déglu ma rek mais je veux dama ne ne bu ñu nekkoon ci dëkku démocratie bu ñu nekkoon ci dëkku démocratie mbir yi day feeñ kon ñi kenn du ko laaj da nga ñëw cliquer rek nga xam ne euh, bi mu demee lan la ñu coûté au pays au Sénégal. waaw bon d'accord xam nga man kii naa non non dama xam nga dama da nga ma ne da nga ma ne ndax ñaata la ñuy coûté loolu normalement ñun mënuñu ko xam. Hmm. parce que yooyu kenn duñu ko wax. voilà loolu laa lay wax mais mais mais mais mais mais mais loolu. mais xam naa au moins xam naa au moins dem. Chine dellu si président ak premier ministre. c'est pour aller négocier ah, ay affaire d'accord na pour indi pour euh, dëkk bi. indi ay partenariat. waaw d'accord mais affaire yooyu. Ah, yow yaa nii yow yaa ngi yow tey jii. yow tey jii yow ak sa journal. tey bëgg nga dem rencontrer ay nit. tey bu ñu la ne bëgg ah, naa sax rencontrer Sonko. voilà loolu ak ak ak Bassirou Diomaye. maanaam benn 5 millions. pour ce journal pour dem négocier ji benn affaire. boo xam ne c'est euh, Abidjan la wala Lomé waaw wala de mais def naa ko ci semaine bi. waaw waaw kon nag kii rek waaw nag euh, Aliou kon nag bàyyil bàyyil Sonko ak kii di nga. mais pourquoi a ne dama euh, na njëriñ. non non man xam nga de Sénégal. mais ça a toujours été man dama ne dama ne rek man ah. rationalisation la ñu wax. mais a toujours été xam nga rationalisation man bu ma nekk ci opposition ma ne man dañu jaay avion bi. Mm-hmm. Mm-hmm. de un domaine doon xam naa ne nañu jaay ma boobu dafa la bi wax naa ko sànq mais da ko mais yaa waxoon nañu jaay avion parce que parce que ça coûte trop au Sénégalais avion boobu yow moom nga jël pour dem seeti seeti euh, Kagame avion moom nga jël laa wax jàll foofu promenade encore demaat demaat au Mali <laughs> waaye léegi avion boobu bu ñu ko jaayoon nag bu ñu la déggaloon jaay ko yow noonu laa la def tey jii nii ñaata ngay loué location ak jënd oto xam nga ni bokkul. donc on, on peut dire euh, ah, on, peut, on peut en déduire voilà Aliou Sow on peut en déduire donc Sonko est-il victime de ses propos. parce que n'est pas le seul. parce qu'il y avait gouvernants. mais oui la même chose alors que kenn daaw appesantir seen pour son cas ma gis ay détails moins de détails rek. est-ce que man man man man dafa ma naqari. wax yooyu xam nga lu tax parce que moment boobu mu koy wax man dama taxaw ci télé ma ne yow li ngay wax ne du am. te loolu bokk na si ñu tax ñi xalaat ni man dama bañ Ousmane Sonko wala bañ waa Pastef wala bañ leen ñeneen ñi moment boobu man dama taxaw ci télévision mais xanaa doo leen dem xool vaar yi mais ma leen li ngay wax ni du dëgg te boo fi nekkee doo ko def. te bés boo ko defee ñëw ne leen ma tuug xar. mais est-ce que xamoon nañ tamit est-ce que xamoon nañu. Euh, réalité réalité pouvoir. waaw mais mais xam man xam naa wax ni daan na ko wax. mais dama ne est-ce que xamoon nañ réalité pouvoir boobu ils étaient dans une. Euh, posture d'opposant. Fatou mais tey ñu nekk pouvoir est-ce que xamoon nañ ne pouvoir nii lay demee. waaw mais Fatou léegi waaw moom mën nañ ko bañ a xam. man d'accord naa intégré état mosoo ko xam aussi. waaw mais mën nañ ko bañ a xam man d'accord naa mais non man d'accord naa mën nañ ko bañ a xam mais Fatou man aussi. Hmm. Euh, aussi man dama am jaar jaar ci àdduna am itinéraire de vie dem ci àdduna bi xam tuuti nag xam naa tuuti luy science politique je sais un peu comment fonctionnent les régimes politiques même les complots politiques ci àdduna bi ci histoire les sur l'histoire des idées politiques dañ dañ ko dañ ko jàng ñu dañ ko xam nit dañuy teg yenn fois dañuy am njort duñu wóor nag mais dañuy am njort moment bi may wax loolu moo boobu li li li nekk ci ma rek laa wax ak li ma xam nit ñoom mu nañ ko bañ a xam waaye man aussi est que ñoom dañ ko bañ a xam que man forcément il faut ma topp leen ci loolu bu mu wóoree ni lii mënul nekk man par expérience. Mm-hmm. ak jàngatu àdduna mais bu boobaa dinaa ko wax mais Fatou moment boobu je le je le disais que c'était pas vrai soixante milliards yi ngay wax ni du dëgg. Mm-hmm. faux politique yi je leur avais dit que ni bi may wax ni bi muy wax ni dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa xaram. mais euh, faux politique boo boo boolee faux politique yi Mhm. ak fonds politique Ousmane Sonko eh bien ça fait plus de 17 milliards moo ëpp ñaari ñaari yooyu te ñoom ay nit kese lañ ko jox te lu leen neex lañ ciy def lu leen neex alors que en France un président de la République ne tient pas les fonds politiques loolu mooy démocratie te fonds yi nekk fonds spéciaux yi nekk assemblée nationale dañuy am assemblée nationale un président de la commission des finances boo xam ne ci opposition bi toujours lay jógee ndax mu mën di surveiller président assemblée xam ne moom moo téye fonds politique yi est-ce que on comprend pourquoi tey Sénégal par exemple moi je voudrais bien ñu proposer un président de la commission des finances à l'Assemblée nationale il viendra toujours de l'opposition ñu bind ko constitution bi parce que ndax muy mën surveiller président toujours la même bu dee opposition bi ñaari député lañ fa am mm. il faut que kenn ki nekk président commission des finances comme ça mu mën di surveiller kii bi ba pare moo wax leen beneen affaire oh. mm-hmm. fii ci réew mi bi am ko mais foo ma ko ma yooyu boo ko dajalee est-ce que yooyu tamit bokkul ci daje yaxanal alalu réew mi. fonds politique yooyu laa wax ba pare beneen affaire bu gën a grave boo xam ne yéen wóor na ma ni yéen ñi kenn xamu ko. nii la. mais est-ce que xam fonds politique yi xam nga nag ñiy liggéey rek inspecteurs yi des impôts yi rek ak yooyu ak contrôleurs yi ak douaniers yi machin ak yenn administration yi. ngeen yaakaar ne fonds politique yi foofu rek la yem même boo retraité laa wax dañuy continuer di la ko jox. pendant trois ans. est-ce que ngeen loolu. ci fond ci fond. <laughs> bu fekkee li mu wax du dëgg. Mhm. fii ñëpp ak bàmmeel mais yooyu duñ ko wax mu jëm kaw presque dañ koy nëbb man mii maa leen ko wax soppaloo. Hmm. boo retraité laa wax da ngay continuer di gérer di am ci fonds politique yi pendant trois ans encore. loolu euh, mooy président bi ak. déedéet. yeneen yeneen corps yi ñi nga xam ne leen jox comme ñoom ay Ousmane Sonko ñoom gars yi ñoom Bassirou Diomaye Faye ils ont profité des fonds politiques des fonds communs ak yeneen inspecteur des impôts yi avant ñoom nii ak ñi fi bu ñu retraité. ñoom rek la ah. ah? ñoom rek bu ñu non ñëpp ñi yor fonds politique yi bu ñu retraité pendant ñetti weer en tout cas au niveau des impôts et domaines. est-ce dégg ngeen mu baax. waaw da ngay retraité. nga mm-hmm. continuer di retraité na de ay ak sa retraite. Mm-hmm. waaye fonds politique yi bu amaatee. bu ñu ko dajalee waatee yow dañ leen di jox seen wàll yéen. ah bon. convention la bu dee du dëgg wax leen ma du dëgg. d'accord. da ngay retraité yow. un autre uh-huh. ñu jox la. Uh-huh. ñu ko ne fonds politique déjà am nga ko. Uh-huh. déjà nee nañu loolu du yoon parce que am nga sa salaire pour bi lay permettre nga liggéey normalement waaye boo paree ba liggéeyatoo. di nga toog ñetti at après sa retraite ñu la koy jox. évidemment en degré moindre. c' est pas le même tarif mais da nga da ngay continuer di profiter ci fonds politique yooyu amaana xëy na bu dee 200000 lañ la doon jox wala 2 millions xëy na léegi 1 million lañ lay jox en plus de ta retraite. vous vous rendez compte loolu est ce que xam ngeen ko. fonds commun la fonds commun. fonds commun yi laa wax fonds commun yi laa lay wax. waaw ah, voilà waaw sànq yaa ngi ne foofu. waaw damay waaw waaw mais mais xam nañ li ma bëgg a wax. waaw fonds commun yi. mais nañ ko dindi. fonds non léegi fonds politique non pare naa foofu. Ah. léegi damay dellu si waat ci fonds politique yi. fonds commun yi moom moo nekk ay. waaw waaw yooyu ñaari wax comme boo retraité dañuy continuer di la ko jox. xanaa ah, ñetti at waaw ah, léegi hmm. yooyu xaalis boobu déjà sax c'est bien parce que nee nga yow affaire bi ça tombe bien parce que nee nga def xaram. Hmm. mais boo ñëwee dindi ko. waaye léegi boo demee assemblée nationale la fay wax boo demee assemblée yow. bu bu ñu la nee yow daa waxoon dafa xaram yow lan nga leen di tontu yow gor <laughs> yow gor laa wax de gor non doo jàkkaarloo ak ñoom. politicien. d'accord dernier point bi Aliou Sow scandale dans l'assainissement Cheikh Tidiane Dièye est-il sous haute protection. ah ben c'est-à-dire que Cheikh Tidiane Dièye boo gisee ma naan euh, euh, ci affaire assainissement yi. est-ce que Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'assainissement est sous haute laa la ko xeex. protection est-il sous haute. sous haute damay wax ba affaire fàtte damay dem rek. <laughs> <laughs> sous haute protection. Mhm. mais boo gisee ma question boobu parce que man ba léegi. ci mhm. ak non xam nga lu ma gën a kii mooy il s'agit du Pastef quoi ñoom ak ak xool li ñu doon wax ci ay ay transparence Cheikh dien directeur de l'ONAS office national de l'assainissement du Sénégal mais Cheikh Dieng mu indi ay këyit teg. ne li de nii la demee kii de lii tax lii moo tax mu dàq ma parce que ànduma moom ndax dafa jël ay bagages nee na ñu jox ko diw ak diw. Hmm. mooy delta ak Vicas foog na. Hmm. ci gàttal. parce que moom nee na ñoom la bëgg. mais est-ce hmm. yi xalaat bi ñuy nommé Cheikh Dieng. déglu leen ma bu baax li ma leen di wax. est-ce que xamoon nañ dëgg dëgg dëgg li ONAS di engranger. comme xaalis ak ay marché. wallaay bu ñu ko xamoon dëgg du ñu jël Cheikh Dieng nommé ko dañuy jël koo xam ne mën nañ ko contrôler nommé ko. dégg ngeen ma bu baax li may wax. parce que pour man loolu kese la mën a nekk mu mu nekk leneen parce que lii nii li Cheikh wax ba léegi te ministre son ministre de tutelle d'alors munu ci ubbi gémmiñam wax ci ba tey premier ministre waxu ci Bassirou Diomaye Faye waxu ci président de la république jëpp jàpp seen ñàmbur croiser les bras alors mbir maa ngi ne gaañ ñu toog jàpp seen ñàmbur. mais non ñun xamuñu sax ndax dafa rouge wala dafa vert en tout cas suñu yoon nekku ci pour le moment on se tait mais lu tax lu tax lu tax pare par exemple Ousmane ko waxu ci lu tax Cheikh Dieng waxu ci un scandale pareil à milliards loo xam ne roppi na xoolal gis nga kii bi enjeu enjeu yi enjeu enjeu ONAS bi ak enjeu bi am ni comme différent entre entre Cheikh Dieng ak son ak son son son son ministre de de de l'assainissement. Mm-hmm. mais enjeu boobu dépassé na ay cinquante cent milliards. xam ngeen ONAS ñaata lay indi ci xaalis engrangé ci muun yi marché yi ñi ngeen war a dimbali ñi ngeen war a jàppalante ñi nga war a jox ñi la war a delloo en plus retour de retour de de de commission. mais yooyu mais man pour man maîtriser wuñu woon Cheikh Dieng bi ñu koy joxloo dañ ko def ba pare rëcc ko moo tax amuñu lu ñu wax dañ ko posé foofu. nommé ko fa pare rëccu doo ko rendre compte erreur bi ñu def par rapport ak enjeu yi am ci xaalis boobu parce que nag naa la wax dara. gis nga ces partis politiques là mais Abdoulaye Wade quand il est arrivé au pouvoir il avait envie de faire exactement la même chose que euh, que Abdou Diouf pour avoir mais un un siège. siège de parti politique. d'accord moom mais mais Macky bi mu ñëwee. moom nag dafa lijjanti ak maître Moussa Diop. du wut ay solution wut xaalis pour tabax. mais siège APR bu yànj bi gis ngeen ko fi mu taxawee bu nekk nekkuloon président la ko def. déjà pour am suuf bi. tey Moussa Diop du leen mës a leeral lan moo tax nan la leen joxee suuf si benn ñaareel bi moom mooy xaalis bi koy tabax ak ni may organiser parti bi gën ko yaatal pour gën mën fee toog au moins am deuxième mandat mais il faut de l'argent mais xaalis boobu ci gars yi nga ko mën jëlee nañ waxante dëgg bu ma leen di wax ñoom ñëpp a yam man xam naa li tax ma wax leen ko ñoom seen bopp ñoom xam naa nee nañu waa ji nangamtaan. waaye waa ji ne daf ñuy yàqal te li muy wax dëgg la. d'accord parce que wallaahi Cheikh Tidiane Gomis. Hmm. moo ni bi mënuñu ko jëlee feneen fu dul foofu. parce que ñoom seen salaire kese la ñu am. Hmm. d'ailleurs. Hmm. mais ngeen def ne Pastef fi yàgg buggul am ay am comme comme siège u comme siège u Macky Sall. ak bu Ablaye Wade. ak bu Ablaye Wade bi moom xanaa ñoom bëgguñu dara waaye léegi ñoom fu ñu jëlee xaalis bi furul ci bagage yooyu. je te fous marché de 13 milliards peut que ni 2 ak sama frère ou frère tasal ma ko ni mu ko war a defee. kenn kaa ngi il sangam. keneen kaa ngi béréb sangam et d'accord ma doon frein wala ma continuer. wala ma retourné. non dañuy freiné ko. waaw bu gën a xëccal day dëgër de. je te jure gis naa man boo gisee may waxee nii ah c'est parce que dama bëgg gars yi mu le man. je peux hmm. plus parler xam nga non je <laughs> d'accord d'accord te wallaay li may wax dëgg la. dina am na ñoo xam ne kontaan ah da nga ma faan ak yow ni nga gisee. waaw dégg nga jox erreur de waaw dama question boo xam dama parce que man xam nga lu ma bëgg a xam. Ah. xam nga Mimi Touré. Mimi Touré. waaw ah, oh. fal nañ ko euh, haut représentant du peuple waaw mais man poste poste boobu dafa mës a am Sénégal. Euh, waaw amoon na fi waaw. moom na fi waaw loolu pour lan la. Ah, est-ce que est-ce que moom defuñu ko est-ce que moom Macky Sall à un moment donné defu ko ko woon bi mu ko dàqee premier ministre. defoon na ko waaw li am mais moom est-ce que du poste boo xam ne rek c'est une transition pour leneen. waaw kooku waa poste boobu loolu yow yow ban rôle ngay joué. ah ah kii bi ban rôle ba rôle mais président bi day wax ak yow da am accès ci moom. day wax ak yow day jëflanteeg yow. day wax ak yow ay secret non chef de cabinet duñ ko wax lépp bul yaakaar day léegi wax muy chef de ah, cabinet. kon kii daal kii daal Mimi Touré mooy haut mun naa la yónni ci béréb boo xam ne sax. Oh. kenn du ko yëg. Oh. même sama premier ministre. même sama premier ministre du ko yëg même sama premier ministre. Hmm. Hmm. au représentant du président. mais parce que mun na ko yónni fenn foo xam ne. keneen du yëg mun na lijjante ak moom yu en fait c' est une sorte de conseil extrêmement hmm. spécial juste rek pour que nii xam nga pour lan.

dégg la bu baax. déggoo ma de da ngaa bëgg a wax rek. waaw fii nga. lan laa bëgg a wax foofu bu la dégg ma non atum la rek ah, ah. sama temps. waaw nangu ko waa léegi arrêté nangu ko waa léegi sama temps. <laughs> te du ma la joxoon temps nekk sa ceeb <laughs> euh, yal na ko yàlla sàmm. Euh, guddal fanam aux côtés de son de son de sa de sa de sa de sa ah, <laughs> a baax mu gudd fan <laughs> maman Ndeye Thiam aussi. mi ngi koy ziar bu wér a wér a la nekk aussi. Euh, moom tamit ñaar yàlla may fan. ak kattan euh, ak beaucoup de santé aux côtés de sa famille. moom Ndeye Thiam yàlla na leen yàlla sàmm. amiin merci beaucoup yéen ñaari jigéen merci beaucoup Aliou Sow pour dire que vous ne m'avez pas parlé de mon joli costume Cheikh Diagne Gomis est très jaloux Euh, Idrissa Rouane mënu ko mënu ko kii parce que man yow xamul luy sa problème yow samay costume ak samay cravate su ma ko solee rek. il n'a pas apprécié frère ba ba léegi mu ngoon ci dem ci rubrique sport ak Cheikh Tidiane xanaa waa Pastef xanaa waa Pastef nga Cheikh Tidiane